alhamdulilahi rabbil aalamiina wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa mawlaana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walaah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi 2STV yi yéen ci biir réew mi bitim réew fu ngeen mën a ne dend ak seen télévision la 2STV ànd ak seen rajo origine FM 88 ñu del siwaat ak yéen rek seen jotaayu daara jii ñu tuddee tafsirul quran seen mbokk daara Abdoulahi Gaye ngeen ci àndal ñu leen di nuyu doole di leen nuyuwaat di leen ziyaarawaat di leen baalu xàq te di leen ko baal dellu di ñaan suñu borom rek macha allah li ñu dul deñ mukk di ko ñaan mooy mu ñuy defal jàmm di ñu defal weer moom borom bi subhanahu wa ginnaaw ba mu ñu sàmmali suñu imaan nag muy rafet lool ba bu ñu demee buñ ko ko yóbbulee mu mën a kontaan ci niñ ko ko indilee moom borom bi subhanahu wa taala macha allahu xam ngeen ni biñ fi mujj ci tafsir saar bii nga xamante ni mooy suuratu Daariyaat amoon nañ ci vingt et un verset te ñu war a jël vingt deuxième verset surtout Zaariyaat amoon nañ ci ñaar fukki aaya yu teg benn aaya kon tey ñu war a jël ñaar fukkeelu aaya bu teg ñaar ci seen saat di suratu zariyat borom bi subhanahu wa bi ma fiy jóge mu ngi doon wax ci ni suuf si ay kéemaan ngi ci waaye ñi xere ñu ñi am pas-pas bu dëgër wóolu yàlla ñooy xam lool mu ne ba ci seen biir sax seen bopp ni ma leen bindi ak seen àdduna si ni mu demee nee na ay kéemaan yu rëy ngi fi xanaa du ngeen xool xippi seen bët yi rek xool gis c'est très simple ngeen xool ngeen gis lii ma leen di wax nee na mu ngi fi moo tax Qataada daan wax naan man tafakkara fi xalqi nafsihi arafa annahu innama xuliqa wa luyyinat mafaasilahu lil ibaada allahu akbar nee na bu ngeen xool nee ku xool sa bopp sax ku xool sa bopp xam ne yàlla ni mu la tàggate ni mu la tàggate daf laa dafa nooyal sa cër yi ngir jaamu ko waaw xool xool xool julli ni mu yombe ci ab jullit rukkoo bi siggi bi mu tax ndeysaan fan yi ci ginnaaw rek dañu demoon Maroc ajjuma bi ñu mujjee julli foofu ci mas mosquée Hassan imam ba def xutba bu rëy dàbba muy expliqué diggante subhaana rabbi al azim ak subhaana rabbi al aala mu ni ginnaaw bi nga kàbbaree ba tari sa faatixa ak saar neen dangaa rukkoo wàcc bi nga wàccee jàpp say oom sëgg ngeen yàlla subhaana rabbi al azim tudd naa sag sell yow yàlla mu màgg bi nee di ko wax di ko wax ba wax ko lim bi nga ko bëgg a wax nee na waaye nga siggiwaat jóg taxaw da wàccoon ni ko yaa màgg siggi jóg taxaw mel da nga ko ah manit màgg naa moo tax ma jóg taxaw comme yow ah mun la kon yow da jàpp ni bi nga waxee sa bi nga rukkoo wi nga laa màgg moo tax léegi nga siggi ni allahu akbar yàlla màgg na taxawanoog man kon da ngaa yëg sa bopp nee na mu ni nga nga nga wàcc ci suuf pour wax nga wan ko ne ko déedéet tolloo maag yow nduroo maag yow te kenn du la dendale kenn yow borom bi nee na nga ne allahu akbar rek rot ci suuf jël sa jëb yi teg ci suuf mu ni xoolal nee na na boo xoolee nit ki bu rukkoo yi bu sujootee nii muy def nii nee na day mel ni benn chiffre day day mel ni zéro mu loolu mooy man yàlla yow man yow yow yàlla man sa jaam bii de maa lay wan ni la wàcc naa ba zéro moo tax ma ruk ma sujoot du damaa rukkoo woon nga ngay yaakaar ne dama sigg gi dama lay diir mbagg léegi nag ma gën a wàcc nag jël sama jëb yi ak nit nit fonki jëwum bi fonk loxoom yi nga xam lu ci taq fa am ñoo bu leen fekk ñu ngi naan nii bu leen dara taqee sax nii la def nga jël sa jë jël say wóom jël say loxo sa bakkan xam ne xet gu neexul sax bu la xeeñee sa yoon newul ci yooyu bi yoon nga jël lépp jox ko sa boroom ci suuf ni ko subhaana rabbiyal aala moo tax mu ne la aqrabu ma yakunu l abdu ila allahi wa huwa sajid qawlu rasul alhabib almustafa sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jaam bi bala moo gën a jege yàlla muy sujoot gis nga sujoot ni mu wàcce waaye nee fa nga gën a jege yàlla te moo ne boo nee di ana yàlla mu la yàlla mi ci asamaan si te yow jógoon taxaw de la nga a ci suuf ñun la suuf si nga nekk gën a wàcc si nga gën a jege yàlla sax ka taxaw mu ni kon wàcce googu nga wàcce sa bopp humilité boobu nga am ba defal loolu yàlla moo tax ñu may la ci sujjóot ginnaaw boo defee say tasbihaat subhaana rabbiyal aala maa tayassara minka li jàppandi ci yow ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar fukk ñaar ñaar fukk yaa xam ci temps bi ngay jël ci sujjóot ndax am na ñoo xam ni sajda dafa dafa fort ci ñoom bu ñu sujjóotee rek da nga yéemu ci yàlla ndeysaan waaw parce que yëg-yëg bañ cee am dafa dafa ràññeeku mooy ñu nga xam ne teewlu dëgg la def ndokkee ci waa kër ba sàll Sall macha allah soo jullee njóog njoom sa xol day sedd yàlla xam na loolu koo ci àndal julli rek macha allah sa xol day sedd ndax yëg-yëg bi ngay am ci ni ñuy taxawoo seen diggante rukkoo ak sujjóot temps bi ñu koy jox day yéeme waaw day yéeme waaw day sànn boo demee fee ci zawiya Cheikh Ahmed Tijani al Sharif al Fatimi imam ba ndeysaan bu rukkoo bi sax man na yem waaye su jóot su xësee ba jël te jëwam bi teg ci suuf mën nga mën na jël diir bu yàgg yàgg yàgg parce que da ngay jege sa borom su jóotal defal say tasbixaat ñaanal sa borom ñaanal waaw kon nit day wàcc mën ne kon nag li indi woon sama wax ji yëpp mooy li Qataada wax rek ni nit bu xoolee ni ñu ko bindee dafa mel ni cëram yi dañ ko tàggat sanaxal ko ci jaamu yàlla mu teg ci ni wa fi samaai rizqukum wa ma tuwaadun nee na ci asamaan si si la suñu wërsëg nekk liñ ñu digit ci la ne liñ ñu xuppeeg li ñu menacé fay gi ñuy fay yépp nee ci asamaan la ne euh, ndax kat wa fi samaai rizqukum gis nga ndox mi taw bii dafa bari njëriñ de taw bii inondation warul tee ñu ñaan taw de waaw inondation yuy am ma waxoon ko waxaat ko warul tee ñuy ñaan taw ndax wa fi iris rizqukum la yàlla wax seen wërsëg maa ngi ko def ci asamaan si wamaa tuaduna ak li leen dig yépp nag ci asamaan si la waaw boo xoolee gars yi fi doon fontoo yàlla yëpp yàlla bu dee li ñuy wax li yow li bu li ngay wax ne sa yàlla ji moo ko wax na taw ay xeer ci suñu kaw na taw na def lii na def lee waaye bu wàccee seen kaw ñu xam ni kenn du suñu borom su wàccee seen kaw ñu xam ni kenn du suñu boroom mu ni kon ak lépp lu leen dig rek mu ni fa wa rabbi samaai wal ardi innahu la xaqu misla ma na maa ngi ci ki asamaan mu tëw daanu mu tàllal suuf mu tëw a lemu comme ni ko mag ñi daan firé asamaan si xool ko rek dàpp bi xayri amadin taraw na yàlla def ko def te gisuñu benn pied bu ko téye moo tax nag man est-ce amul pied ndax yàlla dafa ne amul pied bu ngeen bu seen bët di gis kon lan la ko téye ban xeeti pied la def ba téye asamaanam si moom yàlla ah loolu moom scientifique yi faaw ñu dimbaliñ ci ci gëstu aywa professeur Mapate professeur Ndiouga Camara Samba Ndiaye ak seen kem aywa ay ci dimbal leen ñu ci loolu wax il faut ngeen leeralal ñu ñu xam ndax asamaan si am na ay pieds wala amul pieds waaw Arona professeur le grand scientifique ak ca dimbal leen ñu ci ñu mën a xam ndax asamaan si am na pieds yu ko téye wala déet waaw ñu nag du ma leen noppal ñoom parce que dama leen di wax rek professeur Mapate Ndiaye loolu laa ko ni ko bu la neexoon nga toog fii di def tafsirul Quran léegi nag ginnaaw làqu nga ca ginnaaw en ak université ah! ba doo ñëw def tafsirul quran doo def lii ah ñun ñu wutu la ci doo noppalu doo noppalu waaw doo noppalu faw ngeen di jàpp ci liggéey bii ñuy def ak seeni kem nag macha allah yàlla xam ne ñiñ ci xam ak ñiñ ci xamul am na ay yoo xam ne buñ koy tudd wóor na ma ni am na ci ñoom les les scientifiques ñoo xam ne ñu ngi toog seen saal yi di ree naan tey sawaay li mu xam ci li muy wax moo néew allahu akbar waaw wóor na ma loolu moom aw ci werante ni am na ci ñoom ñoo xam ne ñu ngay yor seen kaas café naan tey sa waa ji li muy wax li mu ci xam dafa néew lool par rapport ak li mu ci war a wax wax nga dëgg de wallaay mënu ma ko xam waaw yàlla nee na kon wa fi sama rizqukum wa ma tu'adun waaw yëpp ci war a ne mu fa wa rabbi samaa'i wal ardi maa ngi giñ ci ki tàllal ci def ab bin borom asamaan ak suuf ni innahu la xaqu lii lii seen wërsëg wi ne ci asamaan dëgg la li ñu leen digit te mu nekk ci asamaan dëgg la mislama annakum tantiqun kom ni ngeen di waxe waaw waaw comme ni ngeen di waxe li ngeen di wax leer na yenn saa nit di wax ba si ak nan la nii ni ni ma sama rëddu baaraam yi leere noonu la ma lii leere lu danga koy dégg sama rëddu baaraam yi nii mu ma leere lool la ma lii may wax leere waaw ni ma leere ni dinaa dee si la ni na loolu la man lii leere xam nga li ngay kon ànd nga ci ak certitude wa maa mu ni loolu de am na kon nag dañu bay xel bu baax suñu diggante suñu borom waaw dañu xool euh, xam ni asamaanam seeg suufam seeg wërsëg gi mu ci def ak yooyu yëpp bu dëgg la comme ni nga xamante ni noonu la ñuy waxee suñuy wax muy leer ci ñun noonu lañ ko war a xamee noonu la war a leer suñu bopp waaw waaw wa fi samaai risqukum yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu ngay wax ci xadisam ba ni yée kenn ci yéen bu doon daw wër sa gëm bu doon daw wër sa gëm wërsëg wi dina ko topp comme ni ko dee di toppee allahu kenn ci yéen su doon daw wërsëgam wërsëg wi dina ko dàqi di ko topp di ko dàqi comme ni ko dee di toppe qul inna al mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaqikum aynama takunu yudrikkumul mawt waaw fu ngeen dee dee fekk leen fa su ngeen koy daw mu ngi dajeeg yéen moom kenn mënu koo rëcc nee na wërsëg noonu lay mel ndax wolof di ko wax ni buy ñëw buy ñëw nee na buum gu seew xaw ma nu ko wolof di waxee nee da koy xëcc mu ñëw waaye nee bu xësee bay dem ceeni bato sax boo ko doon xëccaati doo ko mën a indi waaw wa fi samaai risqukum wa ma tuwaadun fa wa rabbi samaai wal ardi innahu la xaqum misla ma annakum tantiqun yàlla pare ci lool nag dàbb di la indil histoire yonent yàlla ibrahima ku yéeme kooku waaw xalilullah xaritu bi yàlla bi ki yàlla naa ko ci lépp wa id ibtala ibrahima rabbu bi kalimatin fa tammahunna qaala inni jaaciluka linnaasi imaama قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين yàlla di wane rek boppam di wane boppam waaw naan ndeysaan Ibrahima Ibrahima moomu nga xam ne ku yéeme la waaw imaamul muwaxidiina waaw ñiy wéetal yàlla moom mooy seen njiit waaw bokkaale moom zéro la ciy daw moom mooy Ibrahima bokkaaleeg yàlla zéro la ciy daw moom du ci doo ko ci noté waaw parce que doo ko ci fekk. waaw loolu moom kafu ci réew ci Ibrahima moomu nag la yàlla di wan ni muy terale ñi si féeteeg moom waaye wanaale lay ci biir histoire bi ni muy toroxale ku koy fonto loolu dafa baax de yenn saa yi di sanctionner positivement waaye di sanctionner négativement aussi dafa baax nit ku def lu jara san lu dara jara teral nga teral ko ku def lu jar a xal yenn saa yi des koy xal ba mu réglé te xam ne yoo xam rek leen tax a loolu da koy gis sax ci daara yi ci jàngukaay yëpp rek en général di nga yor xale boo xamante ni mën nga ko yor ba xëy mu génn ci daara ji benn dóor doo ko dóor benn yoon rek doo ko dóor déedéet parce moom xam na li ko war mu ngi ci waaye di gis gis am na xale boo xam ni dara newul ci xelam de dara waaye <laughs> moom xamul yooyu de. xamul ay teraa bay bàyyi noonu de insa da nga koy jubbanti waaw addarbu yanfauhum wal ilmu yarfauhum lawla almaqaafatu ma qara'u wa ma katabu di san fàttaliku suñu bay bu baax ba ca naxma taha ja macha allah yal na ko yàlla xare àjjana na yàlla jéggal ko yërëm ko bayit boobu ci moom laa ko njëkk a déggee mu ñëw romb di dem ca këram fekk may jàngale alquran mu taxaw ca bëgg alquran am ja déglu ba xol bi sedd mu ñëw ndeysaan ci la ma waxee loolu ni ma waa kay góor góorlu leen xale yi yar leen leen ci diine tàggat leen leen nañu dem ba xam ne yar bi rek ku wàcc yoon lañ ciy dóor waaye dinañ dem ba xam ne yar bi dina fi nekk te duñ leen dóor ni ma ab dar bu dóor jii de yanfauhum dina leen jariñ ngeen ñu tegu ci yoon wala ilmu xam-xam yarfauhum moo leen di yëkk ti ba ñu kawe mu ne lawlal maxaafa bu ñu ragalul woon ku leen dóor de maa qara'u du ñu mën a jàng wa maa katabu te du ñu mën bind waaye bu ñu demee ba xam ne bu ñu defee lu jara duma ñu duma leen di nga dem ba doo leen duma li bëgg di ko ndeysaan góor yàlla bu kawe la woon nag macha allah maa ngi koy maa ngi ziare njabootam yëpp nag macha allah Mouhamadul Hadi ñu ziar ko ak ay rakkam yëpp nag ma Ma Ibrahim ñu ziar ko macha allah ñun ñëpp daal ak njaboot gi yëpp waaye ziare Cernabu macha allah ak njaboot gi yëpp nag macha allah moom di góor goo xam ni alquran kese la kese kese soo toogee moom rek naw alquran soo toogee moom naw diine allahu akbar soo toogee moom naw diine boo xoolee boo demee Thiès jumaa jee mu fa réaliser ndeysaan comme man dama ko yap miin ko bu ma ñëwee xool fi mu dëkk mën na ko sa kër gu ñaaw gi ak sa jumaa ak ak jumaa jee léegi nga ca def mun ma fee këru yàlla la fii rek sama kër la këru yàlla kay moo war a gën a rafet sama kër man ko loolu de mënuma ci dara waaw waaw man ko loolu de mënuma ci dara waaw jumaa joo xam ni foo ko natt rek ci defarin ba romb na foofu waaye boo demee ca këram ga mu dëkk danga naan déedéet du kii réaliser lii boobu moo dëkk fii nga xam dañu fees tell ak yàlla <laughs> mu leen la ni kii de mu këram gi su ko neexoon def ko nu ko neexee de yàlla nañ ko yàlla fayal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak ay kemam macha allah réew mi bari na lu baax de dabba réew mi bari lu baax waaye ñu bon a saay saay rek fësal mbon gi ba ko xamul da nga naan réew mi mbon rek fi ne déedéet ak mbaax a ngi fi fees del mag ñu baax a ngi fi ndaw ñu baax a ngi fi mu ni kon mu lay nettali ku baax mu yonent la Ibrahima mu ne hal ataaka moo ndax dikkeewu la xadiisu dayfi Ibrahima al mukramiin mbiru histoire ak nettalib ganu Ibrahima yu tedd yooyu ah waaw tedd nañ de. waaye Abdullah ibnu Abbas nee na moom ca waxam ja nee na Jibril la ak Mikail ak Israfil ñoom la yàlla yabaloon ca ba ñuy war a alagi nit yonent Yàlla Luut ya ni leen nag jaar leen ci Ibrahim kan yoo xam ne bi leen Ibrahima gisee daal mel na li la Omar ibnu al-Xattaab waxoon rek ca Jibril jëde istala alayna rajulun shadidu bayadil wajhi shadidu sawadi sha'r laa yura li atharu safar aw kama qaal waaw wala yaarifuhu minna ahad waaw nee na waa joo xam ne bi mu ñëwee ni mu leere dafa yéeme kawar gi ni mu ñuulee def ñu yéem yére yi mu sol ni mu weexee te rafet macha allah weex tal nee gisuñu benn jeexitalu coono ci yaramam te kenn xamu ko ci ñun kooku jaaxal nañu waaye Ibrahima dey ganam yii bi mu ñëwee xool leen ñu rafet lool taaru leer te xamu leen ci dëkk bi avion wàccewu leen fi oto wàccewu leen fi sareet wàccewu leen fi dara wàccewu leen fi Ibrahima mu lool ndeysaan mun la moo ndax moo ndax duma la nettali histoire gaa yooyu nga Ibrahima yooyu mu ni is daqalu alayhi fa qaalu salaaman nee na fàttalikul bis biñ duggee ci Ibrahima yi néeg kër yonent Yàlla Ibrahima waaye biñ ñëwee dañ ni ko salaaman ñu ngi lay woo ci jàmm salaam waaw boo demee ci alquran ñaari yàlla fu muy waxe baatu jàmm rek euh, nakira la koy def te nakira dafa gën a jàmm ju yaatu rek waaw salaam waaw salaamun hiya xatta matla alfajr salaamun ala ilyasin salaamun ala ibrahim waaw wa ida xaatabahum aljahiluuna qaalu salaaman waaw moom daal ah teewlu ma deman ci alquran fu ko yàlla rek eh, def ko maarifa maarifa mooy lu défini nakira mooy lu loo xamante ni tudd mais moo mooy nakira nakira bi dafa gën yaatu ndax lépp lépp jàmm rek day dugg ci biir tax yenn saa yi ñu ñu ñu ñu ci arab waaw ñu ñëw di leen nuyu naan salaamun min allahi wa rahmatuhu salaamullahi aleykum waaw au aleykum seen dégg toll na ci dañ leen la salaamun wallaay maa ngi déglu Cheikh Ibrahima Khalil Lo ndeysaan ma ziar ko bu baax maax maax maax borom cër yu kawe yooyu ci téere yàlla bi macha allah muy nettali nee na am na benn journaliste bu nekkoon Londres noonu la daan def bu daan nuyoo salaamun min allahi wa rahmatu ak rabb ko ci ay arabam buñ ko waxee mu ni man daal mu ni moom boobu la préféré ndax gisul ci alquran fu yàlla di indee ba naan assalaamu aleykum waaye salaamun rek salaamun ala ibrahim salaamun ala salaamun hiya xatta matla alfajri wa ida xaatabahum aljahiluuna qaalu salaaman isdaqalu alayhi fa qaalu salaaman kon nag mbokk yi salaama ngoog jàmm dañ koy préféré sax ci message yi que ay bonjour ak tiktok ak tactique ak yooyu yëpp amul solo nee ko salaam mun la waaleykum salaam ngeen commencé waaye saluer bonjour yooyu yëpp daal mën naa gën a neex de mën naa gën a neex de ndeysaan benn ju baax ndeysaan dafa dem ci benn kii kilifa góor ràññee ko ndeysaan nuyu ko wax ko turam sëñ bi ne ko ah noonu nu ko nit di tuddee mu ne ko déedéet noonu dañ ma ko mais beneen tur wax beneen tur mu ne ah ñaar yi sori yoo mu ne ah mënoon dafay gën a neex nag ba tey de kon nag salaam daal jàmm ngi ci de nañ koy waxante daxwaahum fiha subhanaka allahuma wa taxiyatum fiha salaam waaw jàmm nga mbokk nañ ko téye mu ne xoola mu ne leen salaamun waaye qawmun munkaruun moom it mu ne leen salaam waaye nag yéen de yéen de ñu ñu fakk ngeen waaw waaw ñii de ñu ñu nag loolu waxu leen ko ñoom ñu dégg waaye suuf la ko wax waaw suuf la ko wax mu ni Euh, ni leen ñu ñu fakk moo ñu ñu xamul ngeen parce que kenn xamul leen mu ni faraaxa ila ahlihi mu dellu cay mbokkam dem ca soxna sa ak njaboot ga fa jaa mu dikke leen bi ajrin saminin ci benn yëkk bu duuf seet nag wu ndaw wu baax ñu defaral leen ko mis wi ko ci Ibrahima daa man gante gaaw ci tabba gan boo ko manee danga ciy gaaw waaye gan gu toog xaar ma jëndal la boisson doo dem jëndi boisson rek indi buy naan naan wut da ko bëgg saafal ginaar indil ko waaye boo ñëwee ci kër moom fi ne daal la waaw waaw si ngay wax xaar kon après parce que naru ko ndax ne ko waaw waaw defaral ma waaw mu jeex rek benn yoon <laughs> ma ziar ko bu baax macha allah kon mu gaaw rek Ibrahima dafa gaaw ci gan. new fa sax di leen wax ndax ma defaral leen lekk dafa dem rek indil leen ñu waajal leen defaral leen xar wala nag bu baax rek mu ndaw bu suur mis ko indi. fa qarrabahu ilayhim ci teggi ni teggi ni garam yi ba tey mu indi ko ba ci seen wet rek teg ko fa waaw teg ko fa nekk fa di leen ko sonale da leen teg na ko seen wet defaral na leen yëpp indil leen waaye mu seen ñoom laaluñu ko toppatoo ñu lekk xool mu neen ala taqwa du ngeen lekk ah waaye yéen du barkeelu sax loolooy wax ko kuy yiw waaye lekk leen waay gankat boo ko dee lekk leen ba dina di kii moom mbaa jàmm la def ci lekkam gi ah kay mi gis nga Ibrahima ah waaw du lekk waaye fa awjasa minhum xiifatan mu tiit de ak tiit <laughs> tiit gu rëy mu tiit ko ci ñoom ndax gis na ni ñiy lekkuñu nëbb nag da koo nëbb maanaam dafa nëbb tiitam googu ca biiram feeñalu leen ko waaye ñoom yëg nañ ko xaalu ñun ko laa taxaf bul tiit bul tiit ñun du ñu lekk ndax ay malaaka la ñu bul tiit ci ñun jàmm lañu moo ñu indi sa kër wa basharuhu ñu bigal ko bi xulaamin ci ni ko dinga am doom alimin bu ñu xamal bu am xam-xam muy ishaq waaw waaw dina ñëw mu ni bi loolu amee fa basharna bi ishaq wa min wara ishaq yaqub yàlla loolu yàlla wax ci alquran kon mu ni fa aqbalat imraatu fi sarratin gis nga biñ ko naan di nga am doom ju góor ba daba booba jabar jàng ca wet ga am quatre ëppal na quatre vingt yonent yàlla Ibrahima am plus de cent ans ñu ko di nga am doom ah jabar ja fort mu nga woon ca ginnaaw mu dégg ko ah problème am na de mu ñëw ak yuuxu ya jege ci rek ak xaacu yaag coow laag yëngu jigéen ya fa sakkat wajaa di met kanam bejjate kanam ga nag comme jigéen ñi bu ñu waaroon na wa qaala mu naan hee nopp dalooti na ajuzun toboronka aqimun boo xamante ni dafa jénmel ku mënta am doom mag mu toll ni mam plus de quatre-vingt-dix ans sama jëkkër am santa ñu naan ma doom way yéen haa kon na wax ci leer xëy na sama jëkkër dafa ndara takk jabar ju ma yëgul waaye malaaka yi ñoom du ñu polémique ñu ni ko kadalika qaala rabbuk noonu la ko sa borom waxee rek <laughs> ñun de wax dëgg yàlla yi ngay wax suñu yoon newu ci sa borom daal moo ko wax te moo xam na ni lu mu wax dina ko def waaw moom loolu la wax innahu te moom sa borom boobu kat nga xam ni moo wax wax jooju huwa al mooy ki xereñ waaye al alim mooy ki xam waaw nee na ko sa borom mooy ki xereñ waaye mooy ki xam kon boo waxee loolu am na fum ko teg kon du âge bi ndax dara impossible ci yàlla waaw mën ngaa doon mag mu may la doon mën ngaa doon gone gu ndaw sëy ba màgget doo am doom loolu lépp moom la moom yàlla nee na loolu mbiru doom moo tax yéexa bu li ma incha allah la koy wax wax naa leen ko surtout suura may maye doom. yahabu liman yashaau inaasan ñii ma may leen ay jigéen wa yahabu liman yashaau zukuran ñii ma may leen ay góor aw yuzawwijuhum zukraanan wa inaasan wala ma jaxase ko góor ak jigéen wa yaj'alu man yashaau aqiman ñii ma def leen ñu jéem bi ñu am sax doom loolu lépp xam naa lu tax man borom bi. moo tax mu ni ko ñun ñoom ñu ni ko mbéjate sa lex yeeg tàccu yeeg jigéen bu jeex li yaay jommi naa mag mu toll ni man ba am doom ñu naan damay am doom xëy lii de. ñu ni ko loolu daal kadalika qaala rabbuk noonu la ko sa borom waxee te innahu alxakimul alim moom moo xereñ te moo xam léegi nag nu muy amee loolu laaj ko sa borom ñun dañ ñoo waxoon mission rek wax nañ la ko ah mbokk yi teg leen seen baaraam foofu léegi nag waxtaan bi nag neex na Ibrahima ñeme na leen comme ñeme na leen nag am na nag fitu posé leen question lu mu leen di posé bu ñu fa dajewaatee allahuma shfi mardana warham mawtana waqdi xawaajana waqtim bilbaqiyati salihati amalana wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu